laahi xaqa xamdihi mbokk jullit yi asalaamaaleykum xaali Ousmane waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ay dara xamdan liman laysa lahu sharik fi lmulki tasrifan huwa almalik wa salaatan wa salaaman daaimayni mutalaazimayni ala sirri lwujudi sayidi alambiyaai walmursalin sayidina muhammadin alladi kaana bi kulli alxayrati mawsuufa allahuma fa salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi ma daama alxayru maluufa asalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Chérif ñu ngi lay nuyu jërëjëf ñu ngi lay ziyaar bu baax fa tabaarakallahu ci weer wu tedd wi mm. di jaar ci yow tamit macha allah di nuyu mboolem kilifa diine yëpp macha allah waaye di ci beral nuyoo tamit suñu mm. baay ba ca Tamba bay alhaaji Modou Gueye Tamba xam nga ni ren soxnaam génn na àdduna suñu yaay Daba Sakho fa tabarakallahu yaayu ñoom màgget sa soppe boobu gis nga daaw bi ñu demee Tamba mm-hmm. lépp lu ñu fa lekk moom Daba Sakho moomu fa tabarakallahu moo ci taxaw kon nag ñu jaale suñu baay boobu baay alhaaji Modou Gueye mm-hmm. ñaanal yaa Daba Sakho na suufu Tamba oyof ci kawam amiin yaa rabbal jamono jooju mu ngi fekk nga xaw wéere di man la fa demal wallaay wax dëgg macha allah di ko ñaanal yal na ko aljana waaye jaar ci moom it jaale suñu frère bu fa nekk di Chérif Sey macha allah moo nekk fa tabaarakallaahu ca station ba ñu ñaanal ko yàlla ak ñoom Abdoulaye Señaan yëpp rek macha allah ak waa Tamba yëpp Chérif ren moom at mu xaw a doy waar la waaye nag sant yàlla subhaanahu wa taala mhm. ndax yàlla subhaanahu wa taala lu mu def rek moo gën lu mu deful mhm. ndax moom mooy mu dabbirul shérif bismillah moo tax mu ne wa bashir sabirina alladina ida asabat musibatun mm-hmm. nee na gars yi daal seen comportement mooy mm-hmm. qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm-hmm. yàlla nañu yàlla boole nangul lépp luñ leen ñaanal bi jaa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye tafsir ñu ngi ci sëy yi tafsir jabar ju baax chance la xéewal la da ngay dégg fee sa maam xaadimu rasul mu ngi koy wax naan zawjatan salihatan tuinu ala tuqa wal birru yaa muinu mhm. nee na soxna su baax ci kër mhm. maam xaadimu rasulillahi nee na gàllaaj la ngànnaay la mhm. ñu ne ko maam bamba gàllaaj koy takk sa ndigg mu ne déedéet mu ne soxna su baax bu ko yàlla wàccee ci kër dina aar kër gi ba dara du ruur dugg ci kër gi mu ne waaye soxna su baax ngànnaay la mu ne waxuma ni paaka la waxuma ni jaasi la waxuma ni fetal la déedéet waaye lu ngeen jóg di ko dox rek yàlla day defal kër gi ndam bëri na góor goo xamante ni nee na tey bu ba xëyee suba non maag tafsir dinañu dégg waaye nga am jabar ju baax mu di la delloo si di la delloo si ba suba boo taseeg moom akolaat ko léeg-léeg nga jóg war a def lu baax te yàlla tax yàlla dénk la soxna su doy waar mu di la ci génne di ci génne ba dootoo defati dara waaye xoolal jëmm ci di Abdullahi ibnu Umar doomu Umar ibnul Xataab la pourtant Umar ko takkal soxna si moo ko tànnal moo ko dee demal nga tànn fee ndax lan dafa gis ay jikko ak ay jëfin ak ay melo mu ne ko boo tànnee fii di nga am jabar ju baax soxna soosu Abdullahi ibnu Umar xoolali ko soxna si defal benn bis dafa toog gileemam réer ko mu wër ko fu ne mënu koo gis wër ba sonn ñëw comme nag dafa bëggoon géléem gi ñëw tëdd ci néegam mënu la nelaw soxna si xool ko gis ni jëkkëram mënu la nelaw mu ne ko nijaay lu xew mu ne ko sama gëlëm bi moo ma réer wër naa ko fu ne mënuma koo gis sonn naa ci trop jabar ji ne ko nijaay lenn laa bëgg nga def mu ne ko mooy lan mu ne ko nijaay def ko sarax fii sabilillahi mu ne ko ngane mu ne ko def ko sarax fii sabilillahi mu ne ko d'accord def naa ko sarax fii sabilillahi xoolal jabar ju baax jooju mu xëy suba génn tase ku ñu wax Salim Ibn Rabia Salim ne ko mais yow Abdullahi Ibn Omar dafa mel ni seen naa si gëléem gi ci bët gànnaaru Quba mu ne ko man wër naa ko fii yëpp mënu ma koo gis mu ne ko maa ko gis gëléem gu mel ni am tache fii mu ne ko waaw mu ne ko fii laa ko gis ci bët gànnaaru Quba mu jik fasam rëppatal ñëw seen benn góor gu téye ci nosu gëléem gi di dox di dem mu ne ko góor gi pardon baal ma sama gëléem nga yor góor gi ne ko wax nga dëgg sa gëléem woon laa yor mais doonatul sa gëléem mu cëppeelu ne ko luy tee ba dootul nekk nekkati sama gëléem mu ne ko ah doom yow tam fii fàtte xaju fi biig ci guddi ci trois heures di matin sa soxna su baax su tedd soosu ba ngay tëdd te bu doo nelaw te mu ne la nijaay lu xew nga ne ko sama gëléem a réer mu ne la nijaay jëlal gëléem gi def ko sarax <laughs> fii sabilillahi mu ne ko loo ko wax tu da ko ne d'accord def naa ko sarax fii sabilillahi mm-hmm. mu ne ba nga ko waxee nag fa nga ko ñàkkee falaa ko moome mais mu jommi daanu xam dafa yéeg fasam rëppatal yéeg si Medinatu Munawwar mm-hmm. ni tësër mënu la yeewu ñu sotti ndox wëlbati def lu ne mënula jóg ñu woo baaji Umar ibnul Xattaab bu mu ñëwee am lu mu jàng raay ci kanamu xale bi Abdullahi ne xefeet xippi rek ne ko eh papa nettali ko li mu gis mu ne ko doom li nga gis bu doon ci géej nga ko gis ma ne la xudar nga gis mm-hmm. waaye lii foo ko gisee ci jéeri ji rek mu ne xamal ni sa nga gis mm-hmm. mu yont yàlla Ilias mm-hmm. mu ne ko papa man ma defoon Ilias dee na bu yàgg ba yax ya fënax na mu ne ko doom dee du dagg nekkub doomu Adama. Mhm. doomu Adama nekk na ba noppi mu ne dee da lay jële ci dund gu yàgg gii yàggadi gii yóbbu la ci dund gu dàppate ba faw waaye dee du dagg nekku doomu Adama mu ne ko mais papa papa man dama lay laaj kii di Ilias lii mu am nii lan moo ko may nga xamante ni tey ñëpp yaakaaroon na ni génn na àddina waaye mu ngi continuer di dox ay mission ba tey ji nii mu ne ko li ko may mooy dëggu moo tax sëy ji na borom kër gi dëggu mhm. na soxna si dëggu na njaboot gi yëpp dëggu envers seen parents mhm. waaye tamit parents yi dëggu ci seen njaboot lan mooy dëggu ci seen njaboot mooy ñu war a yar seen njaboot mhm. gis nga sa doom loo ko mën a defal bàyyil ko ay kër bàyyil ko ay compte bancaire bàyyil ko lépp te bàyyiloo ko yar bàyyiloo ko teggin bàyyiloo ko dara waaye boo ko bàyyilee yar ak teggin billahi lu mu yóotu rek dina ci jot tafsir abdurahman barakallahu ay dara fa tabarakallahu wa inna ilyasa la min almursalin mm-hmm. id qala li qawmihi ala tattaquun atad'uuna ba'lan wa tazaruuna ahsana alxaaliqin macha allahu fa tabarakallahu ci li nga ñu andil mm-hmm. ci diggante abdullah ibn umar fa tabarakallahu ak Salim macha allah ak li nga ñu xamal ci Ilyas. Mhm. yàlla na yàlla fay la. Chérif yaa ngi ci thème bu ama am solo mooy yar. ñu mhm. ñun léeg-léeg dañuy xaw a yéex a yar. Mhm. léeg-léeg lu baree bari dinaa koy wax ci sama ay waxtaan yu bari ñu koy suivre dinañu koy gis. mooy yar mu ngi déparé ci suñu émission démb. mooy jëkkër na tànn jabar ju baax jabar ju baax na tànn jëkkër. léeg dinaay wax ni Chérif. jigéen mel na mu war a mel. am doom. doom ja mel naka sudul noonu léeg-léeg boo xoolee papay xale ba melul nam war a mel mhm. parce que nag alaara xudda saas dëgg papa joo xamante ni carte lay yendoo mm. ci boîte de nuit lay fanaan mm. ci baar yi lay fanaan mm. di lëg bu xëyee liggéeyi dem ci ca fowukaay ya di lekk loo xamante ni daganul lekk loo xamante ni lewul bu àndeeg jigéen lu jigéen ja baax baax baax hmm. chance mooy tax mu am doom ju baax ndax cosaan la kullu shay'in yarji'u ila asli waaye jigéen tamit fa tabarakallahu bu góor baaxee lool te tànnul jigéen ji mu war a tànn gis nga ndox bu sellee te defoo ko ci paan bu set wala bool bu set hmm. xamal ni bu ca demee day yàqu kon góor gi na tànn fi muy denc ndoxam muy jigéen ju teey والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا suñu boroom subhaanahu wa taala nee na at-tayyibaatu lit-tayyibiina yéen góor ñu baax ñu teey ñi wala boog jigéen ñu baax ñu teeyi nañu leen may góor ñu baax ñu teeyi noonu ngay jëlewaatit alxabisaatu lil xabisiina jigéen ñi nga xamante ni la yàlla xam doy na moom la sa sa góor ga bàyyi laaji xalifa gay yàlla na yàlla dooli leeram moom la daan wooye walladi xabu sa joor a lambal la ko daan wooye mm-hmm. joor a lambal <laughs> nee na sabar gu mu dem moo koy tas nee na bu bokkul ca sabar ga day fecc di fecc bañ ko naan arrêté yaa ngi yàq suñu sabar nee na doom ju mel noonu jigéen ju ne mën na koo jur mm-hmm. kon bu ñu dellu see ci yar wax nga ko léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn wayjur woo xamante ni may na doomam bàyyil na doomam lu gën yar bu rafet gis nga sa doom loo ko manti bàyyil te bàyyiloo ko ab yar keneen ku ñu yar dina ñëw nax ko yóbbu loola waaye sa doom lu mu mënti ñàkk bu amee yar yaram ak jomam ak fullaam dina ko liggéey ba am ko te donte lee bàyyi woo ko fi yow wayjur bi ngay dem Chérif gis nga soxna dañ koy tànn yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ismaila dafa takk soxna mhm. bi ismaila takkee soxna ibra soxna si mu takk nag la yàlla xam doy na ah bi mu ko takkee ibrahima ñëw fa di seet si ismaila ak soxna si ak euh, fi nga xamante ni fa la ñu dëkk ba xam nu mu mel mhm. ñëw fekku fa ismaila mhm. soxna si xamul ni kii ibrahima la mooy goroom ibrahima ñëw nuyoo soxna si fayee ko ba kenn góor gi na nga def mu ne ko ana sa jëkkër sama jëkkër newu fi waaw fu mu dem xaw ma ko de mën naa ko xaar déedéet xanaa nga xaar ko ci mbedd mi amoo foofu ndox ma naan déedéet robinet yi dafa tëj xam nga ni mu ko tontoo baaxul Ibrahima ni ko waa ndax man na nga maa baal ma yóbbante la mu ne ko waaw bu yàggul Ibrahima uh, uh, uh, Ibrahima ni ko bu ñëwee ne ko buntu kër gi fi mu ko def baaxul na ko mm. changé mm-hmm. mu daal ni ko waa baax na ibrahima dem ismaila bi mu rëbbee ba ñëw ci ngoon gi soxna si dalal ko may ko ndox mu naan ni ko kenn seetuma fi mu ni ko déedéet xanaa góor gu sob dee la fi seet mu ni ko mhm. kan la mu ni ko góor gu bari wax lu ne wax na ko ba mu demee bay dem nag amul lu mu wax nee na fi nga def buntu kër bi baaxul nee na nga changé ko ismaila ni ko nu góor gi mel mu ni ko nii yëg nii yëg nii ismaila ni ko kooku sama papa mu ni ko aha toogaat mu ne ko waaw sam papa moo mu ne ko lu mu wax mu ne ko nee na buntu kër gi fi nga ko defee baaxul nga changé ko Ismaïla ne ko may naa la sa baat sam papa nee na yow ma takk doo sama soxna ma jéggal la gis nga mm-hmm. waaye tamit lan moo may Ibrahima mu mën a am doom ju baax jooju doon yonent di Ismaïla mm-hmm. mooy soxna sa mu tànn mm-hmm. gis nga Haajara waxtu wi mooy jeex fa tabaarakallaahu waaye Haajara kera bi nga xamee ni Saarata may na ko is Ibrahima. ñu nekk ca kër ga Saarata tàmbalee fiir kër gi tàmbalee xat. Haajara ci boppam moo proposé borom këram Ibrahima ni ko comme kii mooy sa aawo. te moo ma fi jiitu léegi mu ngi tàmbali di indi problème te moo ma la mayoon dama bëggoon rek mën nga tuxal ma même bu dee ci àll bi. bu ma amee néegu ñax ma dëkk fa. ah Ibrahima ni ko kon boog d'accord ndax jàmm am. ñu ànd ci fas wi di daw di dem di dem di dem ba ardu Hijaaz. Mhm. mooy fii doon Màkka tey booba ñu ngi jóge Saam. mu bàyyi ko fa mu xool. gauche xool droite gisul dara hajara mhm. xool ko ni ko ibrahima fii nga may bàyyi ci àll bi mu ni ko waaw mu ni ko waaw ibrahima koo ma fi bàyyeel mu ni ko yàlla mm. hajara ni ko ah boo ma bàyyeeg yàlla nag dinaa toog ndax mm. yàllaa ngi fépp fa tabarakallahu loola tey ci gàttal moo jur tey màkkatal mukarrama ñuy dem di daw safa ak marwa loola moo jur tey ñuy dem muna di sànni ji jamraya lan moo ko waral mooy soxna su baax kon daal gaa def naa ni wax naa ko barki démb ci benn émission Chérif wax na ko yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran wa quuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun gilaazun shidaadun laa yaasuuna allaha wa yafaluuna maa yumaruun Chérif dafa mel ni waxtu i jeex na te ñu ngi ci yar bala ñuy profitoo aaya boobu mm-hmm. incha allah dañuy bàyyi ba suba mm-hmm. ñu jël aaya bi bu ko defee nga déparé ko firi ko incha allah incha yàlla na fi yàlla jële coronavirus kon nag mm-hmm. a ajaratu yëpp mooy seen turandoo mhm. ndax lan mbaaxam mhm. ak déggal jëkkëram mhm. kon xaali Ousmane suba ñu yaatal ko incha allah kon nag bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni alaami lhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fa hum saadatuna ahlul makarimi wan nada Modou Fall Sénégal broderie ndeysaan nee na bu gaañi di fet takk masque yi na ko ñëpp di takk waa topp nag instruction suñu autorité sanitaire loolu nekk na lu am solo jërëjëf xal Ousmane macha allah ay dara ani këf ki waaw mu ngi mu ngi fi de ba yaa ngi kii loxo yi waaw waaw maa ngi ci laal de waaw kañ waaw kañ yow yaa ngi ci nagal ma defal la ah, yow yaay xaddimu Quraysan yow Quraysa nga dëgg baax waaye yow kañ defal defal defal anta min ali bayti rasul macha allah macha allah kullu taqiyin sharif alhamdulillah alhamdulillah kullu taqiyin yàlla nañ yàlla nañ ko yàlla def waaw te xam-xam moom ay dara jërëjëf yàlla nee na ñi ko ragal rek la koy jox jërëjëf yàlla na yàlla yàgg dëgg amiin yaa rabbi amiin ay dara jërëjëf